yàlla na fi des yàllal yow yàlla jox barke soxna jaara auzu billahi sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim ci turu président de la république président Macky Sall maa ngi nuyu di di nuyu njaboot ak Serigne Touba bi di beral nuyu njaboot ak Serigne Bassirou maa ngi nuyu mbooleem njabootu Cheikh Serigne Touba yi nekk fii ci jataay di nuyu kilifa yi yi ak kilifa yi aada yëpp yi ci nekk. sëriñ bi président daf ñu fi yónni ñu ànd fi ak délégation ñëw ci bés bi ñu ràññee ci délégation bi ministre Mame Thierno jeng ministre Birima Mangara ministre conseiller Mor Ngom gouverneur de la région de Kaolack préfet département de Nioro su préfet Paoskoto ministre euh, conseiller spécial Cheikh Mbacké Sakho madame Seynabou Ndiégué présidente conseil d'administration sëñ Djili Mbacké chargé de mission Modou Mbacké Bara Dolly responsable politique Lamine Bara Gaye Fallou Fall ambassadeur Mamad Ba directeur général APROSI député Jéema Ndiaye Ba député Gadiaga département de Nioro maire département bi responsable politique yi ñëpp ñëw gunge ñu ci turu président de la république sëriñ bi am nañu mbégte lool président yebal ñu fii ci sama sëriñ ci sama wayjur ci bés bi ñuy tuddee màggalu poroxaan sëriñ bi xanaa ba ñuy tàmbali rek dañ leen di ziar seen mbokk suñu mbokk suñu cheikh daaru rahman bi nga xam ne démb bi badaaxal bi tàbbee ci suñu nopp laata ñuy dem conseil des ministres yeggale nañ ko président ba mu def ci taxawaay bi ci war sëriñ bi président de la république nee na gis na taxawaay bi ak ñaan yi waxoon nga ko bi mu ñëwee ci yow di wutaat réew mi nga ne ko dama laa ameel bor boole naa la ak Serigne Touba mu fayal ma la sëriñ bi man ci sama jëm bopp waxoon naa ci màggal gi ne président Macky Sall lépp li muy def ci dëkku Touba lu ko war lool waaye ma fàttali woon nit booba ne sëriñ Touba ku ko liggéeyee lu mu fay la na ma ko defale woon Blaise Diagne ba mu wut xëccoo député sëriñ bi waxtu wi daaw man la suñu borom wërsëgale woon ma ñëwoon fii ñu koy santaat bu baax bi mu amaatee ren ki ñu fii defal màggal gi muy sunu maam soxna jaara bu jaaratu laay ku màggal bésam da ci am ngëneelu yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak bu sëriñ ndax jaaratulaay jaamukat yàlla la waaye ku amit ngërëmu boroom këram la woon ngërëm bu baax boobu mooy suñu maam Mor Anta Sali suñu maam Mor Anta Sali nit ku baax la woon doonoon nit nit koo xam ne kii daawut peut ñu koy waxtaanee ci lu bari waaye ni ko naaru gànnaar ba Mouhamadou Abdoulaye waxee ci téeréem bi ñuy wax nafaatul miskiyatu mu ne cheikhan aliman sëriñ bu amoon xam-xam moom sëñ Momar Anta Sali waaye amilan bi ilmihi ku jëfe woon xam-xamam la bokk na ci wàllu yi nga xam ne daawuñu jaxasoo ak nit ñu bari dafa daan taxaw di naafila guddi di woori bëccëg boroom fatku la woon doonoon boroom xam-xam bu kowe ci yàlla ku amoon teraanga ak barke mi ngi jamono gane woon jamono 1820 génn àdduna 1882 liggéey bi suñu maam soxna jaara busu doon liggéey ci wetu boroom këram sëriñ Maamoor Anta Sali moo tax mu am ngërëmal yàlla ak yonent bi alayhi salaatu wasalaam yonent waxoon na ne doomam Fatima jëf jigéen ji ci ji jëf ji ci jëfi jigéen mooy topp sa borom kër maam jaara moo dàqoon a def lu rafet ak lu baax ci kër moo tax sëriñ Momar Anta nee na maam jaara busu mii musuma mere musuma merlo maam jaara jaamukat yàlla la woon jigéen ju baax la woon ku daan joxe alalam ci jaami yàlla yi ku daan jëf lu baax la woon ni ko sëriñ Basiru waajuru sëriñ Muntaxa waxe woon ci téeréem ba ne maam jaara ku baax la ku sàmm la ku am diine la ku bari ay julli la ak i woor ak i sarax ku jébbal boroom boppam boroomam waaye ku toppoon sëriñam ba di sëñ Mamoor Anta Sali yàlla fayee ko Cheikh Ahmad Bamba radiyallahu taala anhu Mouhamadou Abdoulaye bi mu tuddoon léegi nee na bi nga xamee ne leeruk Sëriñ Tuubaa mi ngi ci soxna si te ganewuloon àddina ak lu ndox ñàkk-ñàkk musuta julli te jàppul at mi sëriñ bi ganee jamono bëccëg yi daf ko daan woo bi sëriñ bi ganee jamono musu koo nàmpal te jàppul lii mooy wane ne soxna si ku déggoon diine la ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na tere nañu leen ngeen di lekk ci kaw ngeen yor janaba ndax loolu day tax ngeen ñàkk am xel ak wërsëg loolu mi ngi téere bi ñuy wax kitaabul makaarimul laxlaa Cheikh Ahmad Bamba radiallahu taala anhu wax na ne yàlla jéggal na samay ñaari wajur jéggal na ma it man Cheikh Ahmad Bamba mu ne lam yax fa kawnullaahi li alay yaxfara li suma li walidayya kama xafarta li sawital uqdiya noonu tamit la yàlla jéggalee mbooleem li aju ci moom lii rekk war naa tax bu sëriñ bi woote ñépp war a wuy si rawatina bésub maam jaara bi nga xam ne ci moom la lépp doore sëriñ bi président sumb na fii ci dëkk bi liggéey yu am solo wàllu infrastructure bu ngeen fàttali ko waxoon naa ko fi daaw bi tax ñu mën a jéggi xur wi liggéey bi ñu ngi ci àggale na fi salle de conférence yu war a nekk bibliothèque Porokhane ak musée Mamor Maam Jaara Buso salle de réception bu téeméeri mètre carré ak juróom fukk war a tabaxaat école Serigne Moustapha Bassirou fii may wax ak yéen ñi élaboration plan directeur d'urbanisme ndax kenn ku ne xam ne dëkk bi laaj nañu defaraat ko plan de détail ak plan de lotissement am nañ jàpp ne fii ñetti weer mu pare liggéeyu esplanade bi junniy mètre carré également daanaka dem na ci xaaj ak résidence des hôtes bi fi président yéen sëriñ bi sa ñaan mus sa jóg ci président ñaanalaat ko gannaaw bi mu jotee waat ci réew mi juróomi at yi nga xam ne yii moom lay waaj a tàmbali le 2 avril yomb lool ci moom di njiglaay ci moom ak njabootam ak ci réew yépp maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm maa ngi baalu ak ñépp asalaamualeykum wa rahmatulahi taala barakaatu jërëjëf suñ Tuubaa lay teema jóg way fi ngeen jilin seewey ñoo ma boppam soxna jaara soxna jaara moo di ba mi desi di beñaat teeram wa de ndaw soxna jaara bu kon mi neefi tey duñu beew